mboole mbokk yi ñuy safoo moo xam ñu nekk ci réew mi la moo xam ñu nekk ci bitim réew ñoo ngi leen di siyaar di leen ñaanal weeru jàmm ndax ñu ngi dugg sunu weer woo xam ne amuñu lu dul moom ñu ngi ciy jaajëfal mbooleem fu ab mën a nekk waaye mbooleem fu jullit mën a nekk ñoo ngi la ciy jaajëfal di ñaan suñu borom fekk lu ñu ko jàmm te ñu fekkee koy at yu bari ci barke alxuraan. sëñ maam Thierno laaj nga laaj boo xam ne laaj bu am solo la eh, muy lan mooy ak sëriñ Eh, sëriñ da xam naa génnoon ñett yi eh, mooy sëriñub asraar ak sëriñ bi nga xam ne eh, sëriñub diine la mooy bi ñu xam mooy bi nga xam ne dañ ko woowee sayxu tarbiya mooy sëriñ boo xam ne dafay tarbiya ruux di ko marale ak boromam ba nga xam ne tabarkàlla loolu nag buñ ko waxee Euh, buñ ci joxe misaal dañuy xool ku mel ni euh, Serigne Touba wala ñu xool jël si ku mel ni Cheikh Alhaaji malik wala maam Cheikhoun Fouti mag ñooñu nga xam ne ñoo fi nekkoon euh, ñooñu mooy ay sëriñ sëriñ nag dafa am ay façon waaye léegi nag fii réew mi toll maam Thierno buñ ne sëriñ xel yi duñ dem ci ñooñu buñ ne sëriñ ak xel yi dañuy dem ci ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu ñaan bu ko defee ñooñu nag ay sayxul asraar lañ waaw mooy sëriñub asraar dafa am am sayxu tarbiya am sayxu tahlim kon ñett ñi sëñ maam Thierno génnut sëriñ boo ko defee nag eh, bi nga xam ne mooñ ci gën a yitteel tey muy eh, sayxul asraar eh, di liggéey di sëriñ boo xam ne maam Thierno mën naa ne tumuraanke na fii mu toll sayxu asraar ndax léegi ku tëb jëm ci di sayxul asraar waa kay macha allah laaj nga laaj bu am solo laaj boo xam ne maam Thierno euh, bëri na fii ñu ñuy woowee Seexu Asraar boo leen laajee lu Seexu Asraar sax duñ la tontu ndax ndeysaan léeg-léeg nga ne sa biir néeg rek da lay jàpp ñu ne nit lan mooy asraar mu naan da ngay maîtriser sa xaati mag da ngay maîtriser sa wàllu reen ak lu ne mën a da ko maîtriser sa xel mu nujoom te maam na xanaa xamoon ne bu ñu naan asraar dëgg mi ngi ci turu yàlla. man bi may gëstu xelmul xawaatim laa njëkk a gëstu ci xam-xam noppi daal ciy teg xam xam-xamu reen ma noppi door a dugg ci wàll wàllu xelmu nujoom waaye maam Thierno dem naa ba xam ne dëgg dëgg mbir yi ndeke mi ngi ci tur yàlla bu naan dëgg dëgg sayxu asraar mooy ku xam tur yàlla dëgg dëgg dëgg te di ci dox loolu mooy asraar waaye du euh, xam xaatiyon yooyu duñ ko ah ba xam gars yi duñ ko defaree tur yàlla ankay dañ ko ciy liggéey damaa yaakaar ne dag ne ba xam ndax xaatim xawaatim turu yàlla lañ koy defaree waa dañ ko ciy liggéey comme lu mel ne tey jëmmi Allah ci jëmmi boppam rek mënees na cee dagg xawaatim ak leneen ak yeneen ak yeneen ba mu ci tur yi mënees na cee dagg xawaatim waaye boo déggee maam na may wax mooy sëriñ bi nga xam ne dafa jug na day asraar bu jugee balaa gëstu xawaatim na dem gëstu ji turu yàlla ndax xam nga turu yàlla moom ngay am ba noppi pour mën a xam nan lañ ciy génnee xawaatim tur bi boo ko bëggoon a dagg xawaatim ana nan nga koy daggee mu ngi menn ne rek ñu jox la paaka na dañ la cee dagguloo mburu ba noppi te joxuñ la mburu fooy gisee looy dagg waaye dama ne la maam Thierno dëgg dëgg asraar mi ngi ci turu yàlla ndax maam Thierno xawaatim du la may nga dajeek am maam Thierno xam maam Thierno kan mooy maam Thierno lan moo nekk ci moom waaye turu yàlla nag maam Thierno moom ngay topp di ci liggéey di ci liggéey di ci liggéey ba képp koo dajal xam sax euh, kii mooy jën jëmm yan tànk lay dox. da nga maam Thierno turu yàlla daal ci gàttal boo ko toppee danga dem sax ba nga xam ne da gisub tànk sax xam borom sawar la jëm wala àjjana. maam cee na turu yàlla boo ko toppee moo lay may nga dem ba dugg ci digg àll bi dajee garab sax xamoo ban fee xeetu garab la da ngay taxaw ci garab gi turu yàlla bi ngay liggéey moo lay may mbir ñëw jóge fa la ñëw ne la garab gi garab sàngam la ak sàngam garab gi mën naa faj nangam ak nangam xob yi lii lay faj ren yi lii lay faj doom yi lii lay faj wala nga tëdd ñu ñëw wax la garab gi mooy gan garab ak la ñuy faj yépp loolu xawaati mun la ko may loolu amut xel mun na joo mayewut loolu ñi xam ñiy jàng xilmu nujum xam nañ loolu mu dee si gëstu naan garab euh, mu mu ne si soo seetee xam garab gi lu muy faj waaye turu yàlla moo la mën a may daal maam Thierno ci gàttal euh, lépp loo jàkkaar lool xam li ci yàlla at maam Thierno borom turu yàlla yi ci kanam tuuti fii réew mi jëm réew mi seen loxo lay nekk moo tax euh, sëriñ si nañ ko gëstu ji ndax képp ku ci toogut wallahi toogoo ci dara képp ku toogut ci turu yàlla mën a toogoo ci dara turu yàlla xam nga maam Thierno léeg léegi da ngay dégg ñu daral yenn sëriñ naan ko jékki-jékki rek daral nit ne ko loo xam ci Macky Sall mu tàmbali di ratatati loo xam ci Sonko mu tàmbali di ratatati waaye turu yàlla nag maam na moo lay may luy ñëw ci Sonko moom ngeen leen di laaj wala luy ñëw ci Macky Sall mi ngeen leen di laaj du bàyyi ba mu des un mois wala deux mois mu koy door a xam turu yàlla maam Thierno boo ko dee liggéey luy ñëw fukki at la la yàlla loo xam ne fukki at laa la wax la war a ñëw la la yàlla di wan président Macky saala mii toog fi tey xam naa ci moom ñaar yoo xam ne benn bi ba ma koy xam booba waxaguñ sax wax jël président wallahi lasim te turu yàlla moo ma may loolu bi biñ ma koy wan boo fekk na toogagul deuxième mandat bii mu toog nii te nag benn du ci jàmm damaa xamul ndax dégg na maam déet ma ne benn du ci jàmm te wallahi benn bu ci ne maam Thierno bul ma dugal <laughs> dama damay bañ niñ defoon niñ niñu defoon sama waajere doon wax naan euh, ñi jëm sawaraa ñi dem àjjana damay bañ mu juraat fi coow dama ne la maam Thierno turu yàlla laan le boo ko toppee moo lay may képp koo dajal xam fan la jëm ñun nag moom suñu xam-xam jommante naa nag ñu toog ci média di tànnal nit kuy dem sawara ak kuy dem àjjana loolu moom jommante na jomm nañ ko maam Thierno àjjana ak sawara dafa sori waaye liggéey nañ ci tur yàlla ba nga xam ne jëmm ju ñu mën a dajeel foo mën a doon ak foo mën a jógee buñ ne la jàkk boo ñu xoolee ñu xool la ñu man laa bind kaye ba nga jeex tàkk wallaay lazim laaj ma sama dongo yi léegi-léegi damay ñëw toog ak yow ne lay laa defi nangam ak nangam doo ci weddi dara léeg-léeg nga ñëw ñaar ñëw kalaame nga ñëw di wax maanaam la bul wax li lay waxal yépp yaa ko def loolu samay mbokk sax xam nañ ma maam Thierno tur yàlla daal boo bëggee dégg-dëgg fi mu ne moom réew mi fii mu toll ku ko gëstuwut perte nga dëgg dëgg mbir yi ku ko bëgg a xam demal nga toog ci turu yàlla turu yàlla moo lay may kilifa diina yu mag yi nga xam ne sax ñoo ñu fi toogal lépp luy ñëw ci ñoom nga di ko gis di ko xam buñ ne lan euh, ñu ngi ci mën an 2021 buñ ne 2021 sëñ sàngam war naa wàcc liggéey sax sëñ sàngam moo ko fi wutu balaa ñu say àgg yow da nga koy xam lépp loolu nag amul lenn lu ko mën a maye lu du turu yàlla Cheikh Béthio Thioune mi sëñ maam Thierno bëgguma ko woon wax sax ci média waaye boo duggee ci turu yàlla rek di ma ci laaj ay kumpa damay damay damay damay sama deret day yëngu euh, waaye Cheikh Béthio Thioune mii nga xam ne euh, yàlla dogal na mosuñoo gisee ci turu yàlla wala lancim la ma sëñ Tuubaa wanee fu mu nekk te bi mu ma koy wan boobu bi muy bi mu ma koy wan ak bi mu wàccee liggéey ak bi mu ma koy wan benn semaine matu ko ci biir semaine bi mu wàcc liggéey la ma sëñ Tuubaa wan seex bee ci cuun fu mu nekk euh, sëñ maam Thierno mbokki sëriñ yi lekk alalu jàmbur yi ba noppi duñ leen fajal seeni aaju nañ bàyyi loolu bërki démmoo njaay dama lay bañ a indil problème waaye kon fii ci média bi laa koy tudd tur koo xam ne sëriñ boo xam ne mi ngi Tuubaa gii Ibrahima la tudd nag xam naa jërul may indi sant bi waaye naa tudd naa tudd tur wi moom bu ma déggee dana xam boppam kilifa jot na ma te wan ma ay preuve yu leer si benn liggéey bu mu ko doon liggéeylu ba mu yónnee woon ko ci alal ju takku ba noppi li ci gën a metti nee na moom bu ko yónnee woon ay kayitu kese sax mu doon yi nax sax mu tane waaye da ko yónnewul dara heure su ko wooyee mu boole ko ko naa naafeq yooyu nañu ko bàyyi nit boo jógee ne da ngay méccewoo sëriñ fexeel ba képp koo lekk ab dërëmam nga jox ko xam-xam bu fekkee dañoo amut xam-xam ñu dem seeti leneen waaye àllu jàmbur yi ñuy lekk ba noppi di wërloo doomu aadama yi nañu ko bàyyi man raggalantewuma kenn ginnaaw maam Cerno du ma ne nag ke jamono du dox ba maam Cerno nit ne la Abdou Khadir Ndiaye moo moom laa jox sama xaalis fajulu ma ndax comme jamono bi fi mu toll dafa lëndëm eh, mécc mi tamit lëndëm na ndax sëriñ ci jëmi boppam sax dana fay nit pour mu yàq deru doomu aadama waaye maa ngi koy seedal yàlla maam Cerno bu jamono doxee ba nit ñëw indil la preuve ci ne maa lekk xaalisam fajalu ko delloowuma ko xaalisam bu boobaa sama buum ci yoonu tarixatul muridiya barke seexul xadim yàlla na ko sëñ Tuubaa dagg kon nañu bàyyi suñu yëfi naafeq yooyu ñu faj aajooy jaam ñi bu ñu ko mënut ñu dem seeti beneen mécc waaw bu ko defee kon maam Thierno foofu laa ci tënk balaa gën a lekk émission bi euh, li ñu indi maam Thierno bokk na ci jaaro jaaro nag maam Thierno ñetti pàcc la euh, léegi na dafa am ñoo xam ne bu ñu doxoon ba yem ci fukk junni woo xam ne wér na leen ne moom nañ ko ci moomin woo xam ne seen ñaq dugg ci du dolli ci ñoom ci seen xol lu toll ni fépp suuf ndax xeem nañ ko léegi nag maam Thierno am ñoo xam ne ñoom bu doxoon ba yem ci wenn cinq mille sax seen sedd léegi nag am ñoo xam ne ñoom xeeb nañ yooyu yëpp waaye cinq cent mille daal ñoom buñ doxoon ba for ko mooy sedd seen xol te mu wóor ne forin wii ñu ko for moom nañ ko am ñoo xam ne nag maam Thierno fim ne boo ñëwoon fekk lañ ñu toog nga may leen 500000 du yokk dara ci ñoom ndax xeeb nañ ko am ñoo xam ne million lañ teg bët jaaro yi nag noonu la wutantee léegi nag ki nga xam ne moom ci 5000 5000 la toll moom daal daa bëgg wërsëga muy dox na fexe ba daal junni yi di fekkante jaaro boobu am na am na it jaaro boo xam ne moom waxuma la junni junni dépassé na junni mooy bi digg doom cinquante mille cent cent mille deux cent mille mën nay fekkante si say loxo am boo xam ne nag moom moo gën a kawe yëpp boobu moom boo ko amee saw askan boo doonul milliardaire millionnaire amut ku la ko mën a tee nekk jaaro boobu nag boo ko takkee bu fekkee bi gën a kawe bërëb place bi nga nekk di liggéey kenn mënu laa suufeel ku dut ku repp gàtt fan moo lay jéem a xeex danga am ba jaaxal say mbokk da am ba jaaxal say mbokk bu fekkee nag beneen bu digg doomu biir am na boobu tamit kuñ ko liggéeyal danga am ci amin wu yamamaay ay cent mille ak ay cinquante mille daal mën naa nekk mën nay fekkante lu bëree bare bëree bëri ci sa loxo bu ko defee nag liggéey yi tamit noonu la wutantee ndax euh, ki nga xam ne ci cinq mille la toll day jéem a lijjanti jaaro bi nga xam ne moo gën a euh, suufe bu ko defee ki nga xam ne it dafa xeeb 5000 waaye moom daa bëgg a yéeg ndax kenn ku ne ak fa salaire am toll xam nga mënoo di am salaire 25000 euh, francs wala mille francs ba noppi bëgg a yuuti yi million nit kenn ku ne fa ngay toll da nga faa war a jéem a toll di yéeg waaye bu ko defee bu dee bi digg doom it am na waaye bu mu ci man di doon maam Thierno sunuy liggéey moom li ñuy wax la ñuy faral di wax jamono bu ne dañuy def résultat ñun wala ñu baax. Euh, ànduma ak benn sit ci di dox ay ci ay tappale képp ku ma liggéeyal man Abdou Khadir maa ko doon wax maa ko waxaat maa ko waxaat boo gisee résultat alhamdu boo ko gisul man Abdou Khadir ma delloo la sab xaalis loolu moom amul sax ma demte te ñëw waaye kon jaaro yi daal mi ngi noonu am na fi ba mu doy sëkk nag bu ma ne am na fi ba mu doy nag du caagi ne ñun suñu jaaro dañ koy liggéey di teg waaye jëmmi jaaro bi mënees na ko xelle teg waaye secret yi moom dañuy bàyyi ba nit soxla ñu jël sa tur sa turu waajur liggéey ci jox la jërëjëf sëñ maam Thierno tabax kër xam nga sëñ maam Thierno léegi-léegi boo génnee fii ci dëkk bi nga gis ay tabax yoo xam ne man na fee nekk ay at léegi-léegi sax nga dégg ku naan tabax bii de moo ne damaa judd fekk ko fi fondement bi damaa judd fekk ko fi moo ne boobu ba tey fii la nekk te maam Thierno yu si bëri ci kër yi mu ngi yëngu bëri coow subaa ngoon ña fay yeewoo kenn amaase wut ca fondement ba lañ ko yàq bu ko defee nag euh, lu mel noonu da ngay teel a fagaru ci ba ngay fondement waaye maam Thierno ci gàttal am nañ ci secret tabax boo xam ne dama ko fàtte génn sax waaye liggéey nañ ci ab liggéey léegi ni muy benn xaal moom bu ñu ko liggéeyalee nit ki euh, buy fondement da koy suul ci biir fi mu war a tabax bu ko defee incha allah bu ko defee nag dafa am ñaari liggéey bu dee xaal bi la moom deuxième étage la la mën a yemale fondement ba deuxième étage laay garanti ah waaw moom laa mën a assuré fondement fondement ba deuxième étage liggéey bi du taxaw même boo amut dara boo ñëwee bu ñu la ko joxee maam na suñ borom dañ la jox ngay am liggéey ko ba deuxième étage du taxaw waaw waaw nga suul ko fa da ngay même boo amut dara ma ne la maam Thierno lañ la si laaj boo ko joxee bu ñu fa suulee xaal bi jox la dana ànd ak as biteel su ndaw biteel si nag moom bu maçon yi xasee tàmbalee tabax yow wékkal ci tabax bi rek biteel bi di làng ñoom ñii tabax di dem wallahi kenn mënu koo tee dem tabax bi day dem ba deuxième étage boo ko defee loolu mooy liggéey bu njëkk bi bu dee liggéeyu ñaareel nag moom ci troisième la tàmbalee ba septième étage boobu nag moo gën a métti moom ñaari ki ñu koy liggéeyal bu ñëwee dañ koy wutloom xaaf bu dee xaaf nag mooy xar mu góor mu baax bu weex tàll moom lañ koy wutloo damay bañ nag ñu ne moom lañ koy wutloo ñu ne baadu boppam la koy wutal déedéet maam Thierno kiñ koy wutloo bu ñëwee ñun ak moom ñooy ànd ba sa famille tabax ñu rendi ko fa ñun téere bi ñuy liggéey la ñuy sexeel xar mi rendi ko fa muy tabaxee buñ noppee ñu bàyyee ko ak ndawalam lu ko neex def waaye bopp bi bi nga xam ne xam nga téere bi da nga koo sexal xar mi door koo rendi bopp bi da koy suul fi mu war a tabax boobu nag mooy bi tàmbalee troisième étage ba septième étage du taxawaalu mukk même bu doon pale nga bëgg tabax sax képp ku ko bëgg gàllankoor da nga dugg ci biir suuf ci nii wala ci naar rek amut kenn ku ko mën a tee dem da nga koy tabax ba septième étage kon maam na liggéey yaa ngi noonu képp ku ci am looy sikki sàkka wooteel ci numéro yi suñu liggéey garante lay doon loolu dama koy faral di wax lu bëree bari nee nag sëriñ si dañ naan garante waaye garanté wuñ kenn maam Thierno mii jàpp leen ko xam turam xam numéro képp ku ñëw ñu liggéeyal la te gisoo sa bopp ba noppi delloowuñ la sab xaalis